waaw ñu lay nuyu baax a baax di siyaare si ñu lay nuyu baax baax di siyaare alhamdulilah. gis nañ nga teew ci bitu aada Fass bi lan moo waral teew sa diggante aada Fass. waaw aada dañoo bokk loo xam ne mu ñu ko séddoo muy Seexul Xadiim bi aussi tamit muy koo xamante ni tamit dañoo jox cër ci moom jox tamit li nga xamante ni moom lañ yellool ndax dañuy gis maanaam muy ay làmba mag muy tudda mag lépp lu mu nekk man damay woo yëgal ma. wax dëgg yàlla ba tax na maanaam lépp loo xamante ni dugg na ci dama cee wax laaj ma si baxaa ba ci keroog fi mu doon nii fan yëpp gis nañ ne nekkuma fi damaa génnoon waaye bi ma woowee na ma damaa am ab tuut tànk te damaa bëggoon tamit li ma ci gën a neex mooy mooy damaa bëggoon ku ma ci jàngal ay xasida moo tax jàngat bi ma indaale ko noonu tey jii pour mu jàngal ko lool eh, loolu nag moom ci gën di ñaan saa borom mu defal tuut tànk bi tawfeex bu baax a baax ba fi ñuy dégg ñëpp dégg fa te defal ko moom mi jàmm ndax nit ñi tamit dañuy nekk di wax rek waaye kenn koo xam koo xam boog carrément xam ne nit ku baax la dañuy wax waaye bu duggee dara buñ ko wooyee na ko aada lii ak lii da ciy génnaat dañ ko wax tamit da koy def dañuy déglu bu baax a baax loolu mooy waral ndax ñun moom ay kilifa lañ te lépp loo xamante ni duñu ànd ak koo xamante ni nag suudu noonu lay doxe bis am nañ fulu ji doon ne boo ko waxee mu bañ nga waxal ko mu bañ sa bopp te gis nañ ne suñu diggante moom mu ci ànd ak loolu léegi loolu amu ci yàlla xamante ni damaa génnoon tey ci suba laa ñëw nii te daanaka tudd mi lay xaar rek pour delluwaat ndax dama am fi yu nekk ndax ñun sëriñ si daanaka buñ làmb amu ni dañuy profité ci dañuy profité dugg lijjanti lu bëree bëri ci àll bi dooga ñëwaat loolu moo ko waral ñu ngi koy sant baax a baax di am yar nit ñi nag dañ naan nit ku ne am na saahir waaye nam dëgg-dëgg boo digee xam ne nit ku baax lu ko am yar la loolu mooy waral suñu diggante ak moom tey nag di ñaan saa borom defal ko tawfeex baax a baax incha allah tout tànk lay wax hmm? waaw waaw tout tànk bi ñuy wax mooy di ko ñaanal di ko ñaanal foo xam ne fépp ñu ngi fay nit ku baax ñu dégg ko fa waaw kay ba dem bay tere ay waajuram yii nii di yéen yóbbu foo xam ne fépp fu nit di terlee waajuram rek ñu terlee ko fa te am nañ ci yaakaar baax a baax ndax xës day seexul xadim ñu ko fi tuddee tawfeex la baax a baax te moom gis-gis bi mu am ba xamante ni ay kuréel xës la woo pour ñu jàngal ko loolu saa borom du ndax bis yu mel nii ni ñu doon waxoon mais bis yu mel nii day baax buy tudd ay koo xam ne doo ko gane si àdduna day baaxee nga nga nga ganele ko ganele bu am solo dina tax saa borom rus lu bëree bëri dina tax saa borom jaaree ko ci yoon ba xamante ni daal ñii ñaan saa borom dafa ko tawfeex baax gannaaw yow yaa ko yor ci wàllu mystique naka ngeen koy waajal. waaw waaw combat bu ne ak façon wi nu waajal ak nañ koy waajalee dinañ ko waajal ba baax a baax ci côté mystique ak lu mu mën di doon comme que jàppaguñ tan nag moom li ñu koy wax mooy mu concentré wu ci liggéey mais li ci des moom ñun suñ bopp ñoo koy lijjanti ci kàttanu yàlla incha allah bu ñu eggee ñu gis comme nañ gisoo ci gàmbaam bi ak yéen liggéey ñu ci liggéey ci kàttanu yàlla. yor na wala waaw li ñu naan mbër bu mbër neex a ñaanal mbër bu am mbër bu liggéey moo tax chaque jour dañ koy wax mu concentré wu ci liggéey bi incha allah rabbi buñ ci yeggee ci kàttanu yàlla dinañ ci dinañ ci am nañ ci doxee baax a baax ndax musique moom ku ne xam ne ne maam boo ci nëxiwut di nga ci di nga ci noo xamante ni yombut ndax fi ngay dugg ak li ngay tax ak galaaj nga nga nga xaw nga war a jëfandikoo a jëfandikoo loo xam ne ñu yombut mais su ñu ngi ci programme bi ñu ngi koy waajal ci kàttanu yàlla bis bu ñu jàppee dañ liggéey incha allah waaw sëñ a bari hmm. Ada Fass li mu yor nee ci ay ñu koy ñaanal dafa bari pourquoi bu Ada amee combat yéen ñi nga xam ne yéen ko sot li muy jiñ nit ñi lay doon rek li muy jiñ ñi ndax gis nañ bu fekkee maanaam gis nañu mbëru mag yi li ñuy indi ci sëriñ tamit ñoom tamit noonu lay bëree noonu lay demee mais kenn ko xëy na tamit kenn ko day am ci yow yaakaar wookee wookee wookee loolu da ciy am waaye tamit des fois nga gis ñoo xam ne day indi musique pare mais tamit da am musique yoo xam ne tamit mën nga xa bañ a jëfandikoo wala mooy loolu ndax dafa nekkul ne tamit nit day ñëw rek musique bu mu nga jël xëpp ndax ñu lay yàqal dafa bari te loolu tamit ñun ci nga xam ne dañ kaa jege di ko kii moom dañ ko bàyyi xel bu baax a baax nekkul ne day nit day jëw jëri rek indi ñu kii ko waaw mais gis nañ adversaire bi mu am dafa ñeme mystique comme ne Ada Fass ñeme mystique est ce que yaakaar moo gën a tuuti ci ñuy waajal ci làmb. waaw defe naa ñun ay gën a maam préparé Balla Gaye moo gën a métti foofu préparé Modou moo gën a métti yu bëree bëri moo gën a métti foofu waaw ndax moom day dem indi yow nga ñëw indi rek waaw kay noonu la. ba tey ñun li ñu indi li ñuy li ñuy kii yaa moom rëgaluñ ko fi ñu nekk tamit rëgaluñ xam-xam yi yor tamit rëgaluñ ko te am nañ yaakaar waaw incha allah. li ngay mystique ci Balla Gaye di ko mystique ci Modou Lo moom kenn ku nekk waaw mbër bu ne ma mbër bu ne dafa am lu muy laaj mbër bu ne dafa am maanaam façon mystique yu muy laaj dafa am adversaire yoo xam sax jët boo xamee seen gi da xam ne kii day dee ci bi loolu jur di nekk da rey sa bopp doo waaye nag dañ naan du ndax ku toll ne guy gi doo ko am di di di di di dox ci ay xel ak théorie premièrement mooy da nga dem entraîné ba indi doole mystique bi doog a ñëw bu ko defee rek saa borom mën cee def taw fexe incha allah waaw <laughs> waaw guy gi waaw waaw loolu ma ne combat par combat la boo déggee mais sànq yaa ko wax ma ne la kenn koy dafa am ni ñu koy waajalee waaw ndax nekkul ne maam ni ngay waajalee kii combat mag soos combat ma guy gi moo ko gën a métti ci préparation noonu la wax moo tax may la combat par combat la te am nañ ci yaakaar baax baax ci kàttanu yàlla incha allah buñ ci eggee rek dinañ xamante ni bu yàlla li mu doon maye bu ko nangu ci kàttanu moom fañ jaaree ay morom waaw waaw comme ni mbër baaxoo ñëwee rek ndax mbër moom li ma wax li ma koy wax moom mii ma ne ko ah dama entraîné ji moom la a def moom leneen lu mu def lu lool rek wàcc na yoon ndax doo bëri ku mel ne guy gi di dox ci ay lii ak di dox ci loolu foo da ngay dem ci dox ci leer loo xamante ni moo ñëw bis ba boo ñëwee ndax gàllaaj day mottali boo fi kiyee te te te boo ba bu fekkee boo ñëwee te préparé woo rek mën ngaa ñëw ba ci jour ba ngeen may jafe ndax gàllaaj dong mbër du ko yaakaar te boo koy yaakaaree ay jafe la indi incha allah rabbi waa komba euh, ak soos bi ñëwoon na. waaw maa ngi ci biir géew bi. Ah, non waaw ñun bu ko ah bu ko laajee dañuy wàcc ndax des fois li ma lay wax rek ñun amuñu jot boo xam ne daanaka chaque jour bu ko laajee mën nañoo wàcc isaat bu ko laajut duñ wàcc ndax gis nañu combat ak soos bi da kaa laajoon ñu ñëw ci géew bi waaw bu ko laajaatee ñu daan fa incha allah waaw mm-hmm. ah, na jërëjëf de ñaan saa ba dafa ba tey saam ñu ngi fi nga xamante ni mooy Bentañe ñëw ci ngéntal Ada Fass yàlla fi ko may tut tànk bu jigéen macha allah ci tudd bi lañ nekk nii di doxal mais fekk nañ fi tamit koo xamante ne wax dëgg yàlla muy saa Touba muy Mara bu mag <laughs> Mara boo xam ne moo yor Modou Lo yor Ada moom dafa dafa populaire daal tey mën na wax ne mbaru ci bëri tey moo leen yor ci wàllu mystique muy saa Touba saa nuyu naa. maa ngi lay delloo ziar di la jox sa wàccuwaay di ñaan ci yàlla sama borom bi nga xam ne dara taw ko. gan gi nga xam ne moo tax ñu ñëw ci bis bi tey yàlla ko sama borom def mag mu am diine am lislaam màgg ci jàmm ak salaam bay teral ay waajuram daraje Seydina Muhammad sangub sang yi saa ñu gisa ci bisu aada Fass bi duñ ne lan moo waral teewaay sa diggante ak aada sama diggante ak aada dafa doon koo xam ne daf mu yëg rek jàppal mu boppam te du ko taay di ko wax su ma waxee dana ma man Serigne Saliou tax ma jàpp la te man képp ku ma jàpp ngir Serigne Saliou ma jàpp la loolu mooy boole ñu daal. saa ñu gis des ay combat am koy ñaanal ci wàllu mystique. waaw ci benn combat am rek lañ mës a jëflante muy combat dëgg yàlla. ñaanal mbaru passé li mais Ada moom sa waay. waaw dégg mu la wax sànq moom moo ma jàppal boppam ne Serigne Saliou tax mu bëgg ma nit na bu la bëggee da koy bëgg moom moo bëggal boppam jàpp ma te yàlla tax loolu rek. mystique Ada Fass yomb na wala yomb non du affaire mystique xam nga mystique gu ñi ko yor mooy ñi nga xam ne ñoo ko yoroon ko bi combat ñun dañoo dañoo toll ci di ko ñaanal yàlla yàlla di ko suturaal loolu moo ñu boole mais ñi yor ay cumkaam ñoo yor côté mystique am côté mystique ak ñaanal nit ki bokkul. ana Modou. Modou bi ci jàmm waa ñu ngi ci ñaan yàlla mu suturaal ñu ci rek defal ñu ci ndam barke Serigne Saliou. daan Ama Baldé dugg Pikine daan Ama Sène moo des waaw yàlla na ko ci yàlla gën a doole suturaalaat rek ñu continuer ko incha allah bu soobee yàlla. kontaan maa gën maa gën a